وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أيا سمين لا أهند جولي إبليس إذ ناديت بياو بادر الرسول الكدر نفع لخير الله في النكار كل حسن لي جره المكار علمني رحمن في سفينه بأنني قديم المدينة براني لا ولدا كناكري من كل جانب إلى المناكر أصاب عني لا في غرام بسار حبل مبارسي وعني خلب داني يا رحيم حين داومي لو بما أغناني تساومي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nuyu di yéen ziar ci turu Serigne Donga Ndiaye jëwriñ bi nga xam ne mooy jëwriñ général daara fédération Safinatoul Aman di leen nuyu di leen ziar ci turu Serigne Ibrahima Jenn bi nga xam ne mooy daara mooy jëwriñu daara ndakaar bu ngeen gisee jataay bii nag ngeen xam ne am na lu mbooloo mi di waajal li mbooloo mi di waajal mooy dañoo bëgg a jàpp ab ziar ci Cheikh mun taxaar mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim ziar bi nag ñi ngi ko fas yéene amal le 19 mai ca Touba ñu ciy woo waa daara ji ñëpp su ko defee ngir ñu gàttal kaddu yi dinañ jox Serigne Modou Sène mi nga xam ne mooy joxe point yi waa daara ji di déparé di joxe waxtu wi nga xam ne ci la ñuy départ ak numéro yi nga xam ne ku bëgg ak leeral ci ngay jaare ak numéro yi nga xam ne ku bëgg a joxe sa addiya ci ngay jaar ak it numéro yi nga xam ne ku bëgg a dem ci ziar bi muy ñi bokk ci daara ji ci ñooñu ngay woote ñu mën laa bind kon bisimilah sëñ Modou Sène asalaamaaleykum mbokki lislaam waa réew mi ak waa bitim réew bu ngeen gisee suñu jataay bii ngeen xam ne lislaam moo xewleeti ñan ñoo xewle mooy waa daara fédération safiinatul amaan Touba Bawol nga xam ne moo lëkkale daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci làmbaay ak li ko wër am benn bëgg-bëgg muy liggéeyal maam Serigne Touba ñuy waajal bisub ziyaar kan la ñuy ziyaare ji mooy le xalif général des mourides Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yim naal ci liggéey maam Cheikh amadu Bamba bi mu defe ko ni mu ware ziar boobu kañ lay am comme ni ko sëñ Mor waxee dimanche 19 mai 2024 waa Bawol ak waa dakaar ak waa biir réew mi yépp ñi bëgg àndandoo ak daara safiinatul amaan dem ziyaare ji sëñ Muntaxa bu fekkee waa bowal la ña ngay déparé làmbaay kër Sëriñ Tuubaa ga ku ci bëgg am ay leeral da ngay woote ci numéro jëwrin général sëñ Ndonga Ndiaye 77 415 96 37 su fekkee ne da ngaa bëgg a dem wala nga bëgg a joxe sa addiya da ngay woote ci numéro sëñ Moustapha Kunta 78 144 76 08 wala nga woote ci numéro Serigne Bassirou Faye 77 407 30 33 bu fekkee waa Dakar la seen départ mi ngi amee buntu pikin ci station vert blanc bi ñu ngi départ nag après la prière de suba maanaam suñ jullee suba ba pare su fekkee ne nag mbokk taalibe yi bëgg a dem mën nañoo jullisee ci jàkka ji suba mooy doon li gën képp koo xam ne am nga ci ay ay leeral yoo bëgg lu gën a leer ci yow mën ngaa woote ci numéro jëwrin cellule nga xam ne moo jiite cellule Dakar daayira Dakar

ñu ngi ñaan yal nañu yàlla defal ci ziar bii mu bokk ca ziar ya nga xam ne moom la mag ña ziyaare ji woon sëriñ bi di sarsaara muy inna lazina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati faaraxu daarayni awsaara wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Modou seen macha allah kàddu yi leer na kon numéro yaa ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax kon dañuy jox jëwriñ sëriñ Omar Ndiaye mu joxe ay kàddu yu soññee ak kàddu yu woote ci mbooleem waa daara ji ak mbooleem waa bawal ak ku bëgg a jàpp ci liggéey bi bisimilah sëñ Omar. bisimilah barkam Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax lañuy dikk si suñuy kàddu ci kàddu yu jëwriñ maanaam di soññee ci àddee yi nga xam ne moom la ñu war a yóbbu tuuba ndax kenn ku ne xam na ne ku wax siyaar wax ab yóbbal teyit siyaar li ci aju dafa bari ndax ay bànqaas yu baree bari bari moo ci tënku du rek li ngay yóbbu di nga am loo xam ne bi di ko waajal pour mbooloo mi nga xam ne euh, ñoo fay dem boole ko transport bi nga xam ne ay biis ak ay oto yooyu yëpp dafa am loo xam ne bi da ciy aju kon lépp loo xam ne nit dese na ko ci addee ji euh, mu jaayante ngir yàlla ak jëmmi rasulullah sallallahu mu indi li nga xam ne moom la dese ba nga xam ne nañ takku takku bu dëgër boo xam ne bu ñuy dem maanaam lépp loo xam ne dafa aju ci liggéey bi rek dara du ci manqué kon ñu bàyyi xel lool bu baax soññ soññeeku bu baax a baax a baax li ci dolleeku mooy maanaam euh, ci wàllu teggin nga xam ne ziar moom bu ñu ko waxee ci ziar koo xam ne bii koo fonk la am naw doxin maanaam aw melokaan woo xam ne melokaan woo xam ne ku la gis rek ndax Euh, jamono yooyu rek bi ñu demee Masaalikul naan def nañ fa benn euh, taxawaay boo xam ne ña fa teewoon seere nañ ci ñoom ci mbokki làmbaay seere boo xam ne bii seere bu rafet rafet la kon yaakaar naa ne bu ñu jëmee ci kanam sëriñ bi tamit war nañu yor melokaan yoo xam ne bu ñu nee cëpp làmbaay seriñ bi dina ne man jàppoon naa ne melokaan yi sax euh, dina dina aw ma aw amutan làmbaay wala dina tax sëriñ bi ca tàng-tàng ba mu jël décision ne bëgg na gana ji waa làmbaay te loolu nag ñun ñoo koy liggéey ci melokaan yu matale dooni murit akkan ci ay melokaan ci yar ci ay teggin ak addee ju doom yoo xam ne bii bu ñu nee cëpp ci kanama sëñ bi dina ne bis sàngam bëgg naa leen a seet si kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax barki borom Tuubaa jërëjëf sëñ Omar kon mbokk taalibe yi kàddu yaa ngi noonu ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp ñu xam ne kenn ku nekk rek jàppal ne yow yaay ziar bi liñ ci laaj muy addiya nga fexe matal ko ñi mataloon tamit ku mën a jaayante nga fas yéene jaayante beneen bi ñu ci dolli mooy bëgg nañ képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci ziar bi boo ko mënee nga sol yére yu weex ñu ngi koy sàkku ci mbokk taalibe yi baax ndax daara ji dafa am couleur couleur bi mu am mooy vert banaa la ba tax waa daara bawol am nañ ay euh, déguisement yi ñuy sol muy déguisement vert banaa kon kuy jógee Dakar ñi ngi sàkku ci yow boo amee ver nga sol ko boo amee banaa nga sol ko loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatoo jërë ngeen jëf